guy gi bu doon bëre ah. du puus su paas day ñëw daan lépp maa koy def maa koy duma maa koy daan kattanu suñu duma rëg rëg mari bu ñaa xuppaajam loolu théâtre la yow li nga wax sax moom mooy lan yow defal guy gi yow nan a ëppee doole rëg rëg ah, am nga combat de lu leer laa lay wax mbokk yi ñuy teewlu à chaque fois ci luttetv.com ñu ngi leen di nuy bu baax ku ci nekk ci turam ak ci santam tey mardi 15 février 2022 ñu ñëwaat ak yéen ci yéen kaay ma ci ànd ak Boucar Ndour maa ngi lay fay di la nuyu di la siyaare di nuyu mbokku Sénégal yëpp rawatina mbokku internetu Lutte TV ni ko waxee rek ah tey la mardi février waaye nag tey dama am sama bro <clears throat> sama xarit baal ma ah, sama waay tigi ñu ko wax Alioune borom Brésil ah, borom Bambey borom Ngoy Alioune Sylla doom day basuka ngoy ah fàkk man anniversaire tey moo koy naan joyeux anniversaire. joyeux anniversaire ñu koy ñaanal mu dund gën journal bu suñu làmb la ñu koy daal di ubbee mu daal di ñëw ak ñun ci la foudre de caaro yi rëg-rëg dix ans de carrière zéro défaite dix ans de carrière yoo xamante ne nii Boucar marqué na ci empreinte am làmb ràññee nañu ko waaye également wane na ci jom wane ci fulla ngor wane ci jàmbaar. waaw wala nga ne la foudre de Thiaroye rek noonu la ko journal bi xëy bindee mu def nag mun a wax ci moom mooy maanaam ascension bi mu def mooy maanaam tey yéeg bi nga xamante yéeg na ko bu extraordinaire si fukki at Omar rëg-rëg a marqué son empreinte bokk na ci analu li nga xamante ni moo di làmb muy lutte simple muy lutte avec frappe def loo xamante ni nag duñ ne kenn defu ko mais am mën na ne ñu bëri defuñu ko parce que nag boo waxee boo lu kenn deful rek en général am na ñoo xamante ne ñoo fu jiite woon ku si mel ni Falaye Balde tey euh, Euh, euh, Abdourahmane Ndiaye Falang ku su mel ni Mbaye Gueye ñooñu def nañ ci làmb loo xamante amaana tey bu fekkoon média yi bëri nii nit ñi dinañ xam ne def nañ ay exploit yoo xamante a royee waaye nag rëg a baax a baax a baax a baax ah, moom du jóg ci luy joxal làmb ak luy jëmal làmb kanam mm-hmm. ñëw na si si détaillé ko détail par détail. détail par détail bi mu ci jiitu mu ne une carrière en trois temps maanaam carrière la boo xamante ne ni dugg na ci.

lu too war a tolloog tey ay ay ay trente journée xam nga mooy loolu yaakaar naa ne loolu yëpp maanaam expérience rek boo xamante ni am na ko si lutte simple jóge fa nag dugg ci li nga xamante ni rek moo di bëri dóor bi tamit def ci mu am na nag su ma jumul ñaari sans verdict waaye bu ñu jógee foofu noonu tey Omar dugg na tamit ci li nga xamante ni moo di euh, MMA mm-hmm. def si tamit ay preuve am wane si boppam tey ba tey boo ne MMA rek tey sax xel sa xel di dem ci Afrique tey boo ne ay ñoom Francis Nganook ñooñu tey sa xel de dem ci rek te loolu tamit yaakaar naa ne loo ama ama am solo moo tax journal bi ñëw na ci tamit sans partage yaakaar naa ne loolu itamit leneen la loo xamante ni jàngat la bu journal bi suñu làmb bi def na si moom bu baax a baax a baax a baax moo tax li nga xamante ni rek mooy boo seetloo combat yi nga xamante ni tey a def soo suma ne tey ñëpp xalaatuñu woon ne 10 ans di di bu diggante boobu ak ne tey dina yegg si tey a baax a baax ko def exploit yi def en ah, si diggante ak ñoom Mamadi mm. bi fi ñëw di rëñe tey mu ñëw loolu yaakaar naa a ba ñi ñi gën ko ñëwaat na tamit ci quatre combats bu baax a baax a baax a baax carrière am waaw ñeenti combat bu baax baax baax Omar bokk na ci combat bi nga école de lutte Jimbori boobu bi mu fa tamit ah, joxoon nañ ko ki nga xamante ni moo di Jordan ah, bu xam cosaan mu bëreek moom ah loolu su mu ngi nekkoon le 22 mai 2017 soxna euh, Omar Omar ah Iba Mar foofu tamit xam nga rek ñëw na tamit si combat bi nga xamante ni moom doxoon si digganteem ak Elton. Mhm. parce que digganteem ak Elton nag Omar ñu bëri waxoon nañ ne Reug Reug mënul dara ci Elton nga gis mu daan ko avec la manière ñu ne déetawaay ñu jox ko li nga xamante ni moom mën na rek mooy la la la baleine de face muy Gris 2 différence de poids bi taille bi c'était extraordinaire mu ñëw fa li nga xamante ni tey mu nekkoon sa arène nationale en ah, le 15 juin la woon 2019 su ma juumul euh, Luc Nicolaï moo ko tokkoon bi mu doon fêté ses vingt ans mu ñëw tamit ah, marqué les esprits moom Reug Reug depuis nag vraiment gis nañ ne ah, il a il a il a euh, ñu ko waxee rek tey am na daal loo xamante ni tey def na ko ci làmb yokku na ci làmb tey ba làmb di ko bàyyee xel bu baax a baax a baax a baax moo tax ki nga xamante ne ni moom mooy Abdoulaye Marone yëkkati ci ay kàddoom ñi leen dëgg la jaar-jaar bi rafet na waaye na bàyyi xel na xam ne guy gi war na koo mën a freiné waaw nee na guy gi war na koo mën a freiné loolu ay waxi Abdoulaye Morone la nee nañ wutee gis-gis moo waral marchandise di jar moom na maanaam mën na servir mën na maanaam tey utiliser ay loxom parce que gis nañ euh, yoo xamante ni tey des fois des da ko utiliser pour mën a daan ay adversaire am waaye jàpp na nii rek ah, gis nañ exploit yi tamit preuve yi mu def fi ay espoir yu bëree bëri yoo xamante ni tey si seen carrière moo leen freiné kon daal moom daal jël na ah lu bëree bëri daal jox ko ki nga xamante ni tey moo di guy gi yaakaar naa ne am na solo ndax te ñoom ñaar dañoo bokk ay avantage ci làmb ji ndax guy gi dafa bëgg jàppoo rëg dafa bëgg a jàppoo te bëre yi xaw naa nduroo mhm. yaakaar naa ne bu différence di am ñoom ñaar ku ci gën ñor ci xeex bi yow yaa ci ëpp avantage mhm. leneen la nga xamante ne nii fës na lool ci naa bu suñu làmb moom mooy soose bu kër su écurie Fass def ay analyse yu pertinent ci combat bi war am ci diggante Dab Daan ak moor Kankang yëkkati na ci nag ba joxe ci favorim ba joxe ci favorim dab daan bi nag Omar fere na ay jeunes yu bëri fere na ay espoir yu bëree bëri su ma juumul mbaytil ah numéro junior wala numéro 2 naan ko orca bu école de lutte Fadam su ma juumul moom la mujjee daan ah journée boobu noonu idaali ñi ngi moo ko tëggoon moom dab daan bi nag bëri na jeunes yu bëri yoo xamante ni fii moo leen daan digganteem la nag ak Mor Kang ak Mor danseur le phénomène waaye nag bi nga xamante ni tey moo moo nekk fële di tàggat ndaw yu li muy xam ne daal moom ak lu mën a mën a mën a mën a xew nekk na koo xamante tey il offensif mooy maanaam tey day attaqué te vraiment il est mooy maanaam la boo mooy maanaam bi rek mm-hmm. waaye tey mbër yaa di année balance dëglante ñaar ba ñetti année balance te dara waral wàllu ko rek lu dul maanaam moytuwante bi dawante bi adversaire yaa fi promoteur yaa fi di tëgg waaye mbër boo seeti na ko Omar Diop ay mbokam ne ko bañal wala ñii ko ne noo diw day mbapat wala diw moo mën wala nii wala naan yaakaar naa ne amul loolu comme que gagne-pain moom da jël combat dem entraîner ji liggéey parce que ndam a a ah, yaakaar naa am na solo dab daan mii dafa def ay preuve yu bëree bëree bëri Mor Kankang borom kelemale yaakaar naa bu yàlla defee jàmm ñoom ñaar ñoo war a bëri diggante Balla Gaye numéro 2 ak booy ñan journal mi nag dafa am lu mu ci jàngat gum ci def Balla Gaye numéro 2 nee na ndiggam da doon diggante digganteem ak Bombardier Boy Niang numéro 2 diggante ak Tapha Tine na loxoom da doon métti moo tax ñu ne ñoom ñaari mbëri dañoo tàmm loolu ay jàmbat moo tax dak si xale ma Mamadou Koné depuis New York City moom nag li muy xamle rek mooy que ne jàpp na ne Balla Gaye ak Bombardier ak ak ki nga xamante mm-hmm. a bëre waaye moo tax mu daanu di wut prétexte te bi ñëwaat na si bu baax a baax a baax Boy Niang bi mu paree nee ne dafa damoon donte sax gis ko mu dem hôpital tàllal loxo beeg yooyu boo Balla Gaye tamit gis nañ bi mu paree dem na fël nga xamante ne moo di ca France nee na demoon pour faji parce que dafa amoon méttitu ndigi waaye loolu yëpp day yaakaar naa ne moom ah, ñaar yëpp nag ay champion lañ war a nag ñu ngi ñaan yaakaar naa ni ay ndaanaanu làmb lañu làmb mënul am ñu ëpp ñii ci ci ci jamono ji parce que dañuy neexal làmb dañuy duy sat te loolu la ñu bëgg. leneen la nga xamante ne nii tamit mu ngi ci tuuti suñu làmb mooy suñu papa Père Gora à chaque fois mi ngi servir làmb à chaque fois mi ngi ñëw ci làmb di def ay nataal yu rafet nag. gudd fan lañ koy ñaanal rek ak wér yaram yàlla gën a wëral ci di gën a dëgëral taxawaayu Père Gora Ndiaye yaakaar naa ne tey képp kuy dund làmb rek ah, xam nga ko tey yaakaar naa image bu rafet photo bu rafet boo gis ci biir journal suñu làmb rek tey mën nañ ne moom moo ko photo moom Père Gora ah, ko ñaanal rek yàlla na yàlla ah, wëral cër yi dëgëral taxawaay bi guddalaat ay fanam ba ci kanam parce que nag ni ko waxee rek moom moom ci làmb mhm, yaakaar naa ne am na solo torop waaye derby Fass Pikine Boucar keroog dafa dekk ci stade Iba Mar Diop ci dimanche gi mhm. Serigne Ndiaye numéro 2 def lu am solo mhm. digganteem ak Cobra douze secondes la durée mu jàpp ko wan ko ne maa la mën maa ëpp doole maa la gën a nekk xale. jàpp ko wan ko ne maa la mën maa la ëpp doole maa la gën a lool lool lool Omar Forza ki ki nga xamante ne nag moo di moo di moo di. Serigne Ndiaye ak Cobra dama juum. ah ndeysaan combat bu bu ñu doon xaar sax mu gën neexee noonu waaye combat bay gaaw si si douze secondes xam naa sax am na ñoo xamante ne tey amuñu image ndax combat bi gaaw waaye nag euh, lamb la sport la. Cobra xale la day defaruwaat rek waajaatu yokku cere doole ñeex parce que nag euh, bu ñu fàttali am na lu bëri tamit vraiment lu ko dal loo xamante ni tey képp ku mu daloon sax foogatuma ne di nga bëri parce que at benn at boo xamante ni tey da nga si ñàkk sa wajur bu jigéen ñàkk si sa mag ñàkk si kële sotti galaaj ñàkk si kële toogal cumikaay muy quatre personnes yaakaar naa ne loolu psychologiquement tey mentalement day am lu la manqué tey foo nga am mental bu fort tamit ñu a canaliser bu dee yi nag da ngay dem si si psychologue xam wala nga dem si cicatrice yi xam nga ñu mën la xool dalal la ba nga mën a nekkaat waaye daal ndaw la na yokk cere ñeex gën a góorgóorlu parce que a a baax mais lamb rek sport la na a mën a bàyyi xel parce que xale la buy moom tamit benn defet la am te yaakaar naa ne bu góorgóorloo tigi tigi tigi tigi tigi day bokk ci relève faas yi ah mu nekkoon combat bu neex dër bi Fass Pikine liñ siy déploré rek mooy maanaam guddee bi mu guddee woon ak lamb bu mu guddee Dakar moom insécurité beeg yu demee noonu rek loolu lañ si déploré mais déploré mais vraiment journée bu neex la woon. journée bu neex la woon ñu bëre ko ci jom fulla ak fayda. Mbaye Guèye Junior ak Diegane incha allahu rabbi nag dinañu bëre samedi incha allah. samedi la incha allah fële sa stadium Iba Mar Diop ah kun war a nekk nag combat bu neex a neex a neex a neex ñaari revenant laa koy waxee rek parce que ñoom ñaar ñëpp gëj nañu bëre parce que Mbaye Guèye Junior bi oh, bëre lool lool lool Diegane bi tamit teg leen te ne ay année yu bëri waaye nag tey Serigne Modou Niang andil leen pour dékkilaat leen ah journée boobu nag du yomb samedi la bi ñu jëm fële ca. stadium Iba Mar Diop incha allah. yaakaar naa ne dañuy ñaan rek suñu borom yóbbu ñu ci ak jàmm ak salaam ndaxte ay xale lañu yoo xamante ne ay ndaanaan lañu.